uh, one

فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل حطار كفور صدق الله العظيم ما شاء الله صدق يعني man may laaj si nar bu samay siyaare baax di leen ndokkeel ñaa fonde sëñ Abdoulaye Diouf ba mu taxawal daara ji tuddee ko sa daara faron min furoi asuratil mustaqim fi Touba dana yàlla barkeel nag dëgg la loolu baax a baax bari na ñuy nanami téere bi ci yàlla di forme كونت أجيالا كثيرا لا تعد ولا تحصى nga formé ay génération yu bari kan yàlla taxawu la sàmm a baax barkeb sëñ Tuubaa bi yàlla may téere ñu def seen nag Bousso kon dañuy woo sëñ Fallou Ndiaye wax bis bi awliyaay umuur sëñ nag Bousso woote la trois ca Tuubaa turandoo daara yi woote na ca Tuubaa incha allah la trois waaye ñoom ñi nga ñëw

Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israh sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bokk juliti fi taw assalamu rahmatullah. Ñi di nuyu kèn ku ci nek ci turam ak santam. Di tambalé nuyo bi nak suñu kalifa yi mbacké mbacké yi. waaye ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di ñaan yàlla suñu borom mu taas ñu ci seen barke maam di leen ñaanal gudd fan ak wërgu yaram di nuyu ñëpp rek di nuyu sëriñ daara yi di nuyu soppe yi di nuyu invité yi fi teew yépp ci invité yooyu nag ñu ciy jiital monsieur di nuyu honorable député Abdoulaye Diagne té Seigne Ousmane Diagne teewal ko fi di nuyu proviseur bi fi ci lycée bi Amat sar, ak intendant bi mu andal Amat Faye di nuyu ñepp rek ku lim da ngay joom ñi ngi leen di ziar di leen dalal di leen sante bu baaxa baaxa baax te sëriñ daara yooyu ma doon lim néegi nag ñu leen di beral ak cant ndax bés bi bu ngeen ci jàppuloon du sotti ndax xayma bi ñuy def ñun ñii di ay parents d'élèves wala ay soppe kese mënuñu ko kon wax dëgg fa yàlla buñ ko mënoon kenn ku nekk ci yéen fa nga nekk lañ lay fekk jox la loxo ne la jërëjëf yal na yàlla fay la kon kontaan nañ ci yéen dëgg nañ ci yéen bu baax a baax baax a baax noonu it lañuy kontane ci parents d'élèves yi nga xamni seigne sëñ Ablaye bu fi ñewon bëgg a jàngale te joxuñu ko ab dongo it liggéeyam du sorti kon parents d'élèves yoy ñu ngi leen di sant ñoom it ginnaaw bi ñi defal seen bop di leen ñaanal jam di ñaan ku ci nek ku ci am ab tout tank rek yalla na suñu borom dem def mu dem ba mokal ba bok ci ñi tok fi ni di tari. Euh, buñ jeetaay bi nak mënuñ ci fé tok té suñu xel demul comme niñ ko waxé barki demb ci kalifa yi nga xamné ño fi nekkon di gorlu te boba moy tollul nii booba daanaka li mënuñ ko am waaye ndeysaan ñu doon dox ci sen tank bo sen dal di xaar te rek doole ji euh barki demb rek maa ngi koy wax ci radio bi boy tudd oustaz bu misira ak ñi nga xamne ñom la ablay noppal ci jumaa ji mooy ñoom Fallou Sey yalna yalla may ko wërgu yaram sëñ ablay jenn yalna ko yalla jéggal len Maas ndjay yalna leen yalla jéggal ñoo ñëpp suñu borom ñi ngi leen di ñaan ñu jéggal leen ñi fi dess suñu borom katana leen dooleel leen yagal leen fi euh, sëñ ablay mi nak teggu ci tank yoyu bok ci ñi nga xamne ñoy wëyal liggéey booba nga xamne ñooñu ñoo fi nekkoon di ci góorgóorlu te jàmbaare ci lool nag euh, sëñ Abdou Cissé dem ci dem mi ngi koy wax ci rajo bi nee na suñu borom dafa ne xeet bu nekk ku ci nekk da war a dem am loo jàng ba mokkal boo ñëwee ci penc mi nag ku nekk indi li nga mën ñu boole dimbale wante ma ko ci doon wax ne sëñ Ablaye de xanaa ñun lañuy jam waaye Ablaye moom fi mu féete mat na ko sëkk kon du ñu guddal waaye liñ bëgg a wax foofu rek mooy nañ ko jàppale ñun ñëpp léegi mbokk mi doon fàttali aaya bi xayrukum man taallama alquran wa allamahu loolu sëñ Ablaay képp moomu ko képp koo xamante ne nii xëy nga bés indi sa ñaar téeméer ne ko dollil ci kafe bi walla nga indi sa saaku ciment ne ko defare ko toilette yi yaa ngi ci biir ëppalewu la ko kon ñi ngi leen di woo parents d'élèves yi ñi ngi leen di gën a soññ ngeen gën a góorgóorlu ci jàpp ci liggéey bi bëri na ci ay dongo yoo xam ne dañoo toog di jàng kenn laaju leen dara daanaka sax bu ma bone leen amul kenn ku ñu sonnal ci daara ji am na ñoo xam ne dañuy jaayante weer bu nekk ñu ñëw am nuñ def ak sëñ Ablaay waaye nag bëriwuñu nañ ci jàpp ñun ñëpp ñi fi teew ñëpp tey te xamewuñ ko woon noonu ñi ngi leen di woo ngeen jàpp ci daara ji comme activités yi dañoo xaw a kii nag ñi ngi gàttal suñu kàdd foofu di wax ne comme ni ko sëñ Xaadim Njaay waxee alhamdulilah kon ñi ngi ñaan bés bi ñu koy def di ko defaat ndax dama ne dañoo toll ci jamono joo xam ne looy def ci diine ji rek sa xel du dal waaye sëñ Xaadim nee nañu yéene bi rek moo am solo kon ñi ngi ñaan suñu borom mu defal ñu ñu am yene bu sel ba nga xamne alquran bi dinañ fexé ñukoy jang diko mokal diko xam diko jëfé té it ñukoy ñu ñu ci yar njaboot gi bu baaxa baaxa baax wa salaamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum yi wa rahmatullahi wa barakatuh kadi ana so lool ndeysaan so tuka ka tu day astu gàkku mën naa ñëw bintu sëriñ Abdou gàkku ak soxna astu kañ rey wa rey muxtaar day astu gàkku bintu sëriñ Abdou gàkku ak soxna astu kañ day astu asalaamaaleykum wa rahmatullah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 من ربكم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسائعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عودها أعدت للمتقين الذين أو ظلموا nang anna sallallahu ya yalla barkella astu gakku anga gaku angga serigne modou fall al imam mo reyox sa neexal bay modou fall de su ngay sa tari na tari bu am solo ginaaw lolu avant tay day nak ay yu ba ñu wër leen ni ak mokadam deugal ma do wara ñew garal fi ci mbolo kon day melni day sa daara ji moom produit production bu am solo ci xale yi man téere bi yaay ba ne di bi ñëw soxna Mariam xam na moo xam maqsad bi tax mu bëgg a jóg ci soxna beta beta yatat mokkale ci daaray Ndofeen wàcc na yàlla barkeel soo ma dee mën na yoon maaleykum salaam jigéen bi Selbé Diouf Selbé Diouf yàlla barkeel leen tey Diouf yi ñu jàmbaare أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة بعدا قانتا لله حنيفا الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا أنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أدلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو muhtadin يعرضون takbir Masya Allah Sedar kusuk Sing Abla jur Maka mau jur Mau pernah Quran Karim Antara sisi yang berani sampai yang pada baca wajah sehingga makan mainan lagi wabil qira'atiha al-atirah bàyyi na daara macha allah taala kon dañuy woo waa jumaa yi xalaat yu xulaat si dara sëñ Wulu Sow sëñ bi Ndiaye. si si xool si borom kapooti weex bi ngeen seen mooy sëñ Daara Moustapha Touré mi jógoon concours Sénégal bi ci ginnaaw dem Dubaay dem Arabie Saoudite ku ci bari bari mu sant. sëñ Cheikh Lo ñu ngeen si am sa turoo di jàmbaar jox ko ca kaw la dëkk bi tey am nañu kat ñoo xam ne mosuñu ko am ñu dàq ka jàngale. maaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Fallou waa Jula Mor bi. Bachir Diop jigéen wi ndeysaan yéena ba Diop kullu sëriñam mu laa ko géem bu suñ Fàllu Mbàkke mu suñ sëriñam démb la wuyu boromam yal na yàlla yërëm ko Bachir Diop bàyyam bëggoon naa ñëw waaye dañoo dem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 يسألونك عن الأنفال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم sëñ Fall moom kon du yegg dama ne bu fekkee mën nañu wuyu wutu sëñ Fall mi woy juróom fii si table bi dama ne laa wax programme bi yegg sëñ Yaya Bousso ruusoo mu la ko dama ne ko laa wax amul waa sëñ Fall ku ma rusee ko du ma ko tas wax nga dëgg sëñ Fall laa wax sëñ Fall bu fekkee ko ma waaye itam xat ma ne ma ne yow xoolal te nga war a tàmbalee ma tàmbalee fi ñu toog ñu wàcce ma. waaw lu ngeen toogoon mooy. nga ñëw nga teral ko. sëriñ Bassirou li nga xam ne mooy woy juróom dafa ne. bi yëngu bii ñuy yëngu ci la ne. bisimilah. bisimilah dinañu. macha allah. loola yëngu ci loola mu jox ko sëñ Ablaye mii te ku ne xam ne sëñ Ablaye ak ñi mu doge. sëñ Ablaye amul lu mu teralee gone gii mooy juróom teew man ñun bu fekkente ne ñun yi ci baax bi gone gii ma ma tas baax yow daal tàmbali fi ma lay wax moom Balla dafa mel ni sëñ sëñ Abdou Fatah dégg la ne waxal dama ne teg na ko sëñ Dara sëñ Balla ma tax ndax ñëw sëñ Ablaye Diouf dafa def lim def yàlla bi mu ko defee dafa ne képp ku ma ne yow ñu bokk ne ko mën a def leer manga mën a def nanga boo ko mënee ñëwaat ci bopp baax waaye sëñ Abdoulaye lu mu def dafa leer jàngal ay gone woo ñi daa ko jàngale wala ñi jàppale ñoo daa ko jàngale ñi ñëw téere ko di dëgg ba ñuy jàng ak ko andi sa lépp loolu la loolu la mooy mooy mooy samp sëñ Abdoulaye samp na ndëndëm wàcc na ak ñun bu fekkoon teel a benn xale dong la jàngal loolu xale xale xale xale am ci xale yoo xam ne wóor na wóor yàlla Ablaye nee na Ablaye moo am seen wóor yi soxnaa nii nga def ko amul seen wóor yi ngir yàlla lañ ko liggéey. waaye ñu leen di seede yéen ñi nga xam ne yéen délégation boobu jógee ci. sëñ Fallou Sénégal amul koo xam ne sëñ Fallou defal la jukkal xam nga bu fekkee defal defal sa njaboot dafa neex yow def na. amul ku mën a wax fii ne sëñ Fallou ba ba jamono jii may wax jëriñoo ay kàddu kon sëñ Fallou dafa génnalu kon daal ñu ngi leen sant bu baax di leen waaye di wax ne li ngeen wax sëñ Fallou lii la ko firndeel ndax sëñ Abdoulaye fii ci àll bii mu ñëw sam fi daara nit ñi di ko fekk na wóor na loolu barke fa barke fa la loolu barke moo ko ko mu yeggale ma doy dëgg man ndax man jox gii laa dëkk maanaam jël ne waaye jox naa leen moo tax ma waral léegi mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp. naa ko wax may borom gileem yeeg nag yu fi daan ñëw waaw léegi moom xàmmee nañ euh, xale bi damay joxe seede ci moom ci diggante waajuram wu góor ak seen ngëral ko jox ak kii ko jàngal ak seen sëriñ bële man maa fekk 2009 2010 2011 ñu ñoroon ànd. Abdoulaye Diouf ak Maï Mira ak. yar bi nekk ci moom moom laa ngi jàngal doom daara yi seen daara yi jomb Bousso mooy jël kàddu gi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 di ci sant yàlla bu baax a baax a baax. dégloo ak dégloo mbokk yi. alhamdulilah wax ñu di ci sant yàlla bu baax a baax ci mbir yëpp rek. alhamdulilah ala kulli xaal. wala fii dafa am lu ñuy wax. maa ngi ko sax ci sama kilifa bu baax sëñ Abdou Lahad mu ne. ka jóge ca sa ca gent ba ñëw ca sanc ba. munta xam neexeetu sanc ba waaye ka sanc sanc ba lu dolli ko ci sanc ba rek xam na ko euh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax bis ba ñu njëkkee ñëw fii ci dëkk bii ngir bëgg lii taxaw fi wuute naag tey alhamdulilahi rabbil alamin yal na yàlla gën a dolli li ma wax ñi fekke woon xam nañu loolu ndax bu dee gone yi am na ci ñooñ fekkut ñu judd ñenn ñi buñ juddoo it ñu tuuti lañu woon kon ba ñuy sañc sañc bi du tey na mu demee woon nag la mu demee woon ca ba booba jamono it wuute na ak ni mu demee ci jamono bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla gën a dolli bu baax li may njëkkee ci kàddu yi ginnaaw bu ñu santee suñu borom lépp kàddu yëpp ay cant rek la damaa bëgg a jiital ay kàddu yu néew rek ci sëriñ Abdoulahi Diouf ni nga xam ni la ko bokk yi waxe mu doon koo xam ni suñ borom macha allah teel nañoo boole ci waar wi ba mu jugee ca daara ja rek ba mu jugee ca daara ja ma doon jànge sëriñ Fall Jumaada yàlla na yàlla yokku leeram ku baax mbokk mu baax mbokk mu amoon positif mbokk moo xam ni ab jàngalekat la ma sa doon ba ni mu ñibbee ca boromam yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jégal mom moko jangal moko tek ci aw yoon itam waye man dafa jóge ci daara ja rek kilifaam di sama kilifa sëriñ Yaxya Buso ko ak man nga xamni ñoo mom mo ñew ñu bokku maak mom sañ ci daara suratul mustaqima mu nek fa nekkin xamni xamante ni daara ja mënu ko fàtte ben yoon mënu ko fàtte ay taxawayam ak liggeyam ba fi mu ne loola daara ja ci loola lay dox ah mbokk yi fi jaar seede ci moom ay kàddu li ñu wax ci moom lépp dëgg la lépp rek dëgg la te am na luñ ca bàyyi wax lépp la kenn mënul rek waaye taxawaaye moom macha allah yal na yàlla defal ko gudd fan gu ko wér te daaraam ji suñu borom yokk ko ba mu bokk ci daara yi nga xam ne ñoo gën a mag ci réew mi yàlla mën na ko te tëliwu ko yàlla na ko yàlla def di sant bu baax ñi nga xamni ñepp rek bayyi nañ seen yitte ñew bokk ci ak nun sunu bis euh di le ne yit sunu kilifa gi ma tudd legi moy serigne yahya Buso ño warona and ñew waye ay ngant dafa am yo xamni ni yenn yi bokk yi tudd dañ ko fi am ci ci ñu mëna wax ci ngant yi euh, suñu kilifa gu baax googu muy Serigne Fallou Mbakke yàlla dogal mu bàyyi ko fi di turandoowu sëñ Fallou mii mujj jàng léegi ak it yeneen i ngant yoo xam ni neexul a tudd ci biir mbooloo yu yàlla dogal mu gaar moo waral mu fomm ba ñëwut waaye waajoon nañ maak moom ñoo waroon a ànd ñëw kon ñun dañoo ñëw teewal si ko teewaleel suñu bopp euh, ñi ngi sant bu baax a baax a baax imaam sëriñ Abdoulahi Diouf ci taxawaayam bu rafet ci dëkk bi ak ci sëriñ Abdoulahi juuf mi nga xam ni moom nu ko waay jàppee rek ñun ñu ñun ñu yëg ko ndax nu ko waay jàppee rek ñun nga ko defal di sant sëriñ Cheikh Ndiaye bu baax a baax ci taxawaayam bu rafet euh, sëriñ Béji njaay ak sëriñ Modou Fall imaam ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di sant kilifa yi yëpp. xëy na lim sax dafa xaw a doy waar ndax boo ci duggee. dana am koo xam ni moo waroon a jiitu sa xel fakk ko ba nga fàtte ko waaye sant nañ kilifa yi yëpp gërëm nañu leen ci seen teewaay bu rafet ak délégation bi nga xam ni moo ñoo jóge Touba ñëw jóge kër sëñ Fallou Jumaada ak mboolem sëriñ daara yi nga xam ni teew nañ fii yëpp ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di xamal ne yëg nañ seeni taxawaay ci sëriñ Abdoulaye Diouf bu baax a baax di sant monsieur le ci taxawaayam bu rafet ci daara ji ak ci sëriñ Abdoulaye Diouf mii ak mbooleem ña nga xam ne ñoom la àndal di liggéey ca mairie ba yépp euh, autorité municipale bi ñu ngi leen di sant ci seeni pëstéef ak seen taxawaay ci moom te di leen gën a soññ di sant honorable honorable député sëriñ Abdoulaye Diagne bu baax a baax a baax moom itam di sant sëriñ daara yi nag di leen beral ak cant ci kilifa yi lañuy bokk waaye ñoom faawuñu ñu beral leen ak cant ndax ñoo bàyyi seen yitte yépp muy taw muy naaj guddi na quatre jug quatre heures du bu nit ñee dallu ña ngay ca mbaar ma tàng na sedd na lépp rek ñu muñ lépp ànd ak ñoo ànd ak suñu njaboot yi ci daara ji ba yàlla dogal ñuy génne lii ñuy génne nga xam ne Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne yàlla def na tawféex ñu ëpp ñu lu ñuy jël ay raaye ci jogante alxuraan yi def ci àdduna bi ci jamono yi ñu toll. loolu nag ñoom seen liggéey la moo tax faaw ñu beral leen ak cant tey sàkku ñëpp it ñu ñaanal leen yàlla gën leen a dëgëral gën leen a teg loxo. Euh, noonu it la ñuy berale ak cant ahbaabil quraan ci seen taxawaay ndax xam ngeen ni ñenn ñu nekk la nekk ñi ngi seet nuñ ko boolee nuñ ko taarale ak nuñ koy jéem a wane. koo xam ni nag kenn du nattablewul ni li nga nekk mooy li gën li nga xëy di yëngu it yàlla gërëm na ko. loolee war nañ taxaw ñoom ñëpp ci daje nekk benn di ci yëkkandoo di yëkkateendoo di tegandoo fexe ba góor góorgóorlu ba li ñuy liggéey fuñ ko teg ñëpp xam ni ñi doon liggéey seenub liggéey rafet na moo tax seen taxawaay rafet na lool rafet na démb rafet na tey na nag ci jataay bii ngeen xam ne ñëw ngeen fekk ñu fii ci Ndiob ci daara sëñ Abdoulahi Diouf ji daara suratal mustaqima ji nga xam ne moo nekk Ndiob ñi ngi leen di sant tàmbalee ko ci njiit yi ba yegg ci ñepp ñi nga xam ni bokku nañ ci mo xam señ daara yi la mo xam soppé alcorane yi nga xam ni duñ ay señ daara waaye dañu ñëw bokk si ci mbooloo mi sant nañ ñepp gërëm nañ ñëpp. Euh, tuddoon naa léegi sëñ Fallou Jumaada ci taxawayam bu rafet bo xamni ni Abdoulaye Diouf mi na ngeen xamni kenn la ci ñi mu formé kenn la ci mbolo la formé mbolo la jangal mbolo la tek ci aw yoon. bokk yu bax yi nga xamni ñoo jugee ca këram ci téw ñenn lañu ci ñi nga xamni mom mo leen jangal mo leen formé mbooloo la formé yàlla na ko yàlla defal tawféex ju kawe kawe kawe kawe li mu liggéeyal yàlla ci àdduna yàlla na ko yàlla fay lu gën a rafet ci àjjana loolu yàlla mbokk la mu baax mbokk la moo xam ne dañ koy sagoo fu mu doon fu ne waaye na ñëpp xam ne suñu Ablaye Diouf mii de gërëmoon nañ ko démb ci moom waaye gërëmaat nañ ko tey jii ci moom bu baax a baax noonu la ñu gërëmee sëriñ Yaxya Bousso mi nga xam ne mooy suñu kilifa di kilifa ak suñu Ablaye Diouf mii sonn ci moom lool moo jàppoon ci loxoom teg ko ci loxoom xaritam mbokkam seigne Fall Jumaada yalla dimbali ko bam def ci li mu ci def sant nañ len gërem nañ len bu baaxa baax xamna kaddu gi may wax eh, yalla day dogal muy kaddu daara ji di kaddu seigne abdullah Diouf xamna lima ci bëggono wax lepp dana ci am lo xamni ñak maîtriser kaddu yi na ko wara defé man na tax mu manki waye lu ci manki rek nañ ma ko jéggal ñi ngi sant bu baaxa baax suñu mbokk yu baax yi nekk ci table ji nga xamni taxawu nañ liggey bi taxaway ba gën rafet ta nak ni lañ ko masli ande àndee ñun fu dara soxla rek bayyi nañ seen yitte yépp def ko muy seen ba mu jeex ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm bu baax baax di kontan ci yeen ndax mënu ñu ko ñak alhamdullilah rabbil alamin ba nga xamni ne jéggaani wuñ ko ci suñu biir leen ko amé leen sant bu baax kaddu yi ay cant rek la won li ci des ay ñaan lañ koy mottalee di talal loxo bi borom bi mom mi nga xamni ni moom lañ toogoon ñaan ko booba ñëwaguñ fi ci dëkk bi ginnaaw boo xamante ni séq nañ ak waxtaan si Abdoulaye Diouf mii mu di man melal di ma melal njob ba nga xam ne mel na ni ci nim ma koy melal ni mel na ni nim ma koy wanee mel na ni ñëw naa fi te dikkaguma fi yàlla dogal ñuy waxtaan ci nan la ñuy def ba taxawal fi daara ji jéego ay jéego la yoo xam ne mënu ma ko nettali fi ju doy waar sax nag ba yàlla dimbali ñu daara ji taxaw fi mu doon pàkk boo xamante ni am nañu ko fi jiitu woon ngir fàkkal ko ko mu doyoon waar nag lool lool loolu jàkk naa ab junj la boo xam ne doy na su ñu demee ba suñu borom defal lañu fi lii tey jii dëgg-dëgg war nañoo sant yàlla bu baax war nañ ko sant lool lii may wax ñenn mën nañ koo dëggal ndax dafa yàggut lool waaye ñagasoon na nag alhamdulilahi rabbil alamin ba ko yàlla nooyale tey ba ñëpp ma ñëw tàllal ci loxo nangu cee bokk bëgg cee bokk waaye amoon na jamono ñi nangu a bokk bariwul woon ñi bëggoon a bokk bariwul woon ñëpp tàllal lañ ci loxo ñi ngi koy sant yàlla yi ñëpp joo seen loxo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.